kon loolu tam ñu ngi ci soññ mbooleem mbo mbokki taalibe yeeg mbokk mbokk gi yëpp ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax euh, xam naa nag comme ni ko sama nijaay waxee xëy na waxtu wi dina xat xatu xëy na li nga xam ne sii moom lañ lañu suñu borom wërsëgale xëy na ci wàllu xam-xam ci wàllu mbay xëy na lépp duñ ko mën a yaatal fii wante jombul dina am ay ponk yoo xam ne danañ ko ci mën a tudd ak bàyyi fii suñu ay numéro téléphone ba xëy na képp koo xam ne si am na ci soxla soo xam ne si xëy na dafa jëm ci wàllu mbay mu ñoo contacter pour lépp loo xam ne xam nañ ko ci ñu séddoo ko ak ñoom Euh, li mu wax nag maanaam ci wàllu mbay dafa am solo ndax mbay mën nañ ne moo yor àdduna te mbay dafa doon loo xam ne si ci tubaab ñun ñi ko jàng ci wàllu làkk tubaab bu nu waxee agriculture ñu binde ko ak a bu mag bàyyiwut dara agriculture boobu mooy mooy bay mooy nap mooy sàmm mooy rëbb mooy même wàllu foresterie garab yi nga xam ne si dañ koy bay si àll bi tam agriculture boobu da koy ëmbaale bu ngeen seetloo bu njëkk Sénégal dañ daan wax rek ministère de l' agriculture moo daan yor lépp loo xam ne sii moo jëm ci wàllu àll bi xëy na léegi lañ ko séparé mais bu njëkk lépp la woon agriculture boobu aussi boo xoolee li ci gën a am doole mooy li ñuy wax wàllu production végétale muy mbay nga xam ne si mbay mi la ñuy wax parce que gox bii ñu nekk mën naa ne bay moo fi ëpp doole naam nit ñi ñu ngi sàmm mais bay mooy li nga xam ne si moo fi ëpp doole bay nag mu bari ay xeeti gàncax yoo xam ne si ñi ngi koy bay moo xam gerte la moo xam dugub la moo xam ñebbe la wante fii mën naa ne daanaka mbayu maraîchage bariwu fi bu ñu wax maraîchage mooy mbayu légumes yi nga xam ne si moom la ñuy jëfandikoo doon na mbay moo xam ne si moom itam mu am solo la moo xam ne sii li may faral di wax souvent ñun suñ borom dañoo wërsëgale ñu yor suuf yoo xam ne sii xeetu gàncax yépp fi mën a sax waaye dafa mel ni dese nañ koo xam ba daanaka li ëpp ci suñu mbay dugub la ñu bay gerte la bay ñebbe lañuy bay leneen la ci dolliku aussi mooy ci wàllu organisation ndax tey jii ci réew yi nga xam ne sii dañoo développé ba egg fenn fi lépp loo xam ne sii nekk na fa di lu baax rek baykat a ko moom ñun nag bu ñëwee Sénégal baykat bi mooy koo xam ne sii amut mënut xamut loolu lañ jàppe baykat fii ci Sénégal te bu ñu demee ci bitim réew bépp compagnie boo fa gis wala bépp société boo fa gis wala bépp entreprise bu mu mën a doon boo xam ne sii dafa nekk bu am doole rek ay baykat a ko moom te loolu dara mayu leen ko lu dul ak booloo buñ fàttalikoo xëy na loolu ñun dañ koo jàng ci kayit waaye moo ñu mag jamono jamonoy Mamadou Dia am na lu mu fi doon taxawal lu ñuy wax ay coopérative agricole tubaab yi bi ñu xamee ne loolu bu taxawee Sénégal dina développé ba ñoom duutuñu am benn njariñ ci ñun lañ jaxase sengoor ak Mamadou ja jaxase koo kilifa diine yi ban naax saayal loolu wante loolu képp mooy li nga xam ne si moo ñu mën a delloo si pour ñu mën a tege ci yoon woo xam ne si suñu mbay dana jub ndax coopérative yooyu nga xam ne si moom la ñuy wax bis bu taxawoon tey jii mooy tax baykat bi nga xam ne si day bay ñoom ñooy booloo taxawal seen ay kuréel ndax baykat li ko gën a sonal mooy lan jiw bu baax mënu koo am engrais bu baax mënu koo am leneen la ca dolleeku mooy maîtriser wul ndox mi ndax dañoo sukkandiku ci taw te ku nekk xam na ne fi mu ne nii dañoo toll ci jamono joo xam ne si ci tubaab dañ koy wax changement climatique muy jamono ji dafa nekk di def soppeeku dañuy jekki-jekki gis mu tàng jekki-jekki gis mu sedd jekki-jekki gis mu taw fii fee taw parce que bi may ñëw rek suñ dëkk ñun taw na fa ba tooy biig fii gisuma fi mu taw loolu ay coppite jamono la yoo xam ne si xëy na nit ñi nag am nañ ci part de responsabilité bu mag ndaxte képp koo xam ne si yaa ngi dagg garab yaa ngi contribuer ci loolu loolu itam dana baax nit ñi maanaam ñu gën leen ci sensibilisé ba nga xam ne sii xëy na dana tax li nga xam ne si ñu ngi koy def ci jaww ji aussi ñu wàññi ko ba nga xam ne si ndax changement climatique moom kenn mënuta mënatu mënatuñ cee mucc liñ mën a def rek mooy jéem adapté maanaam jéem a xool yan anam la ñuy def ba dëkk ak loolu ba loraanga ji nga xam ne si dina ko am mu wàññeeku loolu mooy li nga xam ne si moo jëm ci wàllu maanaam mbay mi càmm gi aussi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax ku ne bay danga naan sàmm sànq bi may ñëw maa ngi xool suuf yi sama frère sama mag bi di ma wax ne ma ñii de seen suuf si amul doole ma ne ko amul doole mu ne ma waaye bu ñu amoon engrais ma ne ko kon ñu def musiba ki jàngut bay day jàpp ne suuf su amul doole da nga ciy def engrais engrais ci suuf su am doole la war a dem suuf su am doole ci la def engrais ndax engrais. defarut suuf gàncax gi lay defar boo bëggee sa suuf mu am doole nag da nga fay def li ñuy wax fumier mooy tos bi nga xam ne si mooy jóge ci gétt gi mooy jóge ci fas yi wala ngay def sax li ñuy wax compostage ndax mën nañoo dajale loolu nëbal ko ba nga xam ne si boo ko yóbboo ci suuf si dana daal di mën a jariñ gàncax gi engrais bu fekkee ne da nga koo jënd ci def ko ci suuf soo xam ne si amul doole sànni sab xaalis ngay def ndax engrais suuf su am doole moo koy tëye ba maanaam minéraux yi nekk ci engrais ferñeent yi nekk ci engrais bi gàncax gi mën cee jot waaye bu fekkee ne sa suuf amul doole nga def ci engrais minéraux yi ci nekk maanaam ferñeent yooyu bu tawee da ko yóbbu ca biir foo xam ne reeni gàncax gi du ca mën a yegg loolu kon xëy na ay xam-xam la yoo xam ne si ki jàngul mbay jombul mën na koo bañ a xam loolu nag dafa dana baax nit ki nga xam ne si xëy na mooy jëfandikoo wàllu mbay mu jéem a xam yooyu nga xam ne si moom la ñu jëfandikoo leneen li ci dolli ko aussi mooy ci engrais xam nañ ne dafa am engrais bu nekk gàncax gu nekk ak engrais jombul fii ñoom duñ faral di utiliser engrais waaye li nga xam ne si mooy tos bi aussi doon na loo xam ne si lu am solo la loo xam ne si war nañ koo mën a utiliser leneen li ma siy dolli aussi mooy ci wàllu maraîchage bi ndax maraîchage aussi tey jii bu fekkoon ne nit ñi fexe nañ ba ndox mi egg ci tool yëpp nit ñi di def maraîchage xëy na li ñuy wax ci wàllu exode rural muy ndaw yi nga xam ne dañuy génn dem Dakar bu ñëpp danañ mën a toog fii di liggéey di suturlu di am li nga xam ne si moom lañ bëgg. leneen li ci dolli ko aussi mooy fuñ toll ñu ngi jàmbat ay wéradi yoo xam ne sii day am ci nit ñi wéradi yooyu dara mënu koo saafara lu dul ñuy lekk li nga xam ne si moom la ñu bayee ci suñu réew ndax ja jaww bu mën a nekk alam bu mën a nekk la nga xam ne mooy saafara waa foofu ci alam lañ ko mën a jëlee maanaam bu fekkee da ngaa jëggaani li nga ne si moom ngay dunde faaw ngay jëggaani garab yi lay faj te leneen li ci dolleeku mooy àdduna dafa teel toll foo xam ne si ci wàllu développement faaw nit ñi jëm ci li nga xam ne si mooy ñuy jéem a am li ñuy wax autosuffisance alimentaire ndax dafa bokk ci li nga xam ne si arme la boo xam ne si réew yi dañ koy xeexe tey jii bu ñu xoolee ci yeneen réew yi da ngay dégg ñu ne la fu mel ni États-Unis d'Amérique seen production de maïs bi nga xam ne dañ ko am maanaam bi ñu bayee ñe euh, mboq ba pare bi ñu ci génnee li nga xam ne moom lañ soxla la ca des dañ koo taal parce que ñoom bëgguñu mukk maanaam ñu produire lu ëpp li nga xam ne si moom lañ soxla ba nga xam ne si prix bi day wàcc ñun fii buñ xoolee baykat yi état mooy fixé prix yi nga xam ne moom la ñu jaayee seen ay produits ñàkk organisation moo ko waral tey jii baykat yi bu fekkoon ne organisé wu nañ te dañoo war a yegg foo xam ne sax ci misaal duutuñ jaay matière première maanaam baykat bi bu bayee ba pare du jaay gerte pays yi nga xam ne dañoo développé dañuy transformé amul benn baykat boo xam ne day jël doomu gerte di ko jaay déedéet diw la lay jaay ak saabu ak ràkkal mais du la jaay gerte ñebe ji aussi am na ay façon xeeti transformation yoo xam ne si ñun fay ma nekk ci Louga ñebe dañ ciy defar lu nekk te loolu ay xarala la yoo xam ne producteurs yi ñoo koy def pour pourtant dañ leen woon rek ni koy defe ñu mën koo def li ñoo ñu man fii war nañ koo man lim laaj du lenn lu organisation ndaxte aussi li may faral di wax mbooloo mooy doole te mbooloo rek la état mën a jàppale aussi tey jii bu fekkee ne amuñu kuréel goo xam ne taxaw na jëm ci loolu mënuñoo fexe fexe ba am ndimbal ndax formation boo mën a def mënoo former kenn nit ñaari nit faaw da boole mbooloo mi nga tàggat leen ci li nga xam ne si moom nga génne bu ko defee ñoom ñu man koo jariñoo xam naa sama nijaay pour bañ a guddal ndaxte xam naa ne li jëm ci wàllu agriculture bu ñu ko bëggee wax xëy na lépp mënuñ koo wax xanaa dina baax ah ma continuer dina baax bu fekkee ne daal en tout cas mën nañoo fexe ba taxawal benn kuréel boo xam ne si xëy na day jëm ci wàllu woowu bu fekkee ne day laaj ay formation yooyu incha allah ñun liñ ci xam wala loo xam ne xamuñ ko ci sax am na ñu ñu ci ëpp xam-xam ñoo xam ne mën nañ leen a jot ñu ñëw fi toog ak yéen waxtaan ceeg yéen expliquer leen ndaxte comme ni mu ko waxee xam-xam aussi jariñante rek lay jariñ te comme ni mu ko doon junje sàng ci wàllu jàng xam-xam xëy na ñun suñu gëstu bëriwul waaye gis nañ ne Serigne Touba ay téeréem lu saa ubbee jàngi leen xam lay wax xëy na nag xam-xam boobu xam-xamu diine ca la bokk ndax moo gën a war a njëkk waaye métier mi nga xam ne si aussi da nga koy jariñoo di ci jariña yaakaar naa boobu xam-xam l'islam du ko bañ kon ñu gën cee bàyyi xel ci maanaam xam-xam yi nga xam ne si fànn yépp ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax Euh, leneen li ma ci wëgg a dolli aussi mooy ci wàllu maraîchage bi ak arboriculture ñu xam ne war nañ ko fee mën a def fii nii mën nañ fee bay moo xam maraîchage moo xam légume bu mën a doon mën nañ koo bay fii suñ tund yii lépp lañ fi mën a def bu dee ci wàllu arboriculture bi may ñëw maa ngi romb benn tool xaw ma kan moo ko moom gis naa fa ay citronnier ay manguier ñu xam ne mën na fee nekk li ci des mooy jéem a am xam-xam bi ak toppatoo ndax agriculture aussi loolu la laaj maanaam boo xasee xam li nga xam ne si moom ngay def li ci des du dara lu du toppatoo toppatoo moo ci des ak bu fekkee ne am na loo xam ne si xamoo ko nga laaj bu dee ci wàllu commercialisation parce que bokk na ci li nga xam ne si moo gën a gàllankoor baykat yi maanaam dañu bay ba pare du ñu am fun jaayee adduna dafa egg foo xam ne fi mu ne nii li ñu wax mooy maanaam démarche chaîne de valeur la ñuy def approche chaîne de maanaam baykat bi waaye loolu foog ngeen organiser wu parce que boo organiser wu mënoo jaay li ngay bay par kenn mënut baykat bi day jaay avant muy produire li muy jaay maanaam da ngay jaay doo ko bay léegi loolu moo xew ci àdduna bi da ngay jaay ba pare waxaale nga ak nit ba ngeen signé ay contrat nga ne ko mankat ci misaal bu ñu jëlee gerte da ngay xam ne gerte rendement bi mën na laa jox peut-être une tonne à l'hectare nga ne mankat kat damaa bëgg a bay dix tonnes dix hectares ci misaal war ngaa mën a am gën gaa tuuti dix tonnes nga waxaale ak ki nga xam ne si moo lay jaay ba ngeen fixé prix. nga respecté itinéraire technique bi maanaam boo jiyee gerte ni nga koy toppatoo ba ca muj ga fiche technique yi nga xam ne si ñi nga xam ne ñooy gëstu wàllu jiw dañ lay wax ne la boo ko respecté di nga am nangam ci ay tonnes nga signé ki nga xam ne si mooy jënd sa gerte nga bay jaay ko loogi noonu la ñuy liggéeyee loolu mooy li nga xam ne si noonu la ñuy liggéeyee léegi nag loolu pour mu mën a am faaw nit ñi dañu organiser wu sànq maa ngi wax lu mel ni ay société coopérative coopérative yooyu tey jii bu ñu demee fu mel ni États-Unis d'Amérique courant ba fa nekk lu ci ëpp coopérative yi ñoo ko moom te ay baykat lañ ay baykat lañ kon mbooloo mooy doole te mbooloo mooy li nga xam ne si moo mën a indi koom-koom ci am réew moo mën a indi koom ci ab dox gox mais kenn nit mun a def dara kenn nit moom mënuñoo fexe ba bu fekkee ne par benn benn lañ ku nekk di def mënuñoo fexe ba dara taxaw te coopérative boobu mooy gën a faciliter commercialisation boobu may wax ndaxte tey jii même ci wàllu jënd ay jiwoog yooyu ñun dañ koy liggéey ak producteurs yi dañuy def li nga xam ne moom la ñuy wax achat groupé maanaam tey jii bu fekkee ne producteurs yi dañoo nekk ci benn dëkk boo xam ne dafa sori pour kenn ku nekk dem ci dëkk jënd jiwu day jafe dañ koy boole ñoom ñëpp ñu gis benn fournisseur mu jaay leen jiw njëgg day gën a yomb ba noppi day gën a accessible ndax dañ leen koy indil ba seen dëkk léegi démarche bi foofu la nit ñi toll maanaam commercialisation avant ngay produire ci lañ toll loolu nag day baax baykat bi nga xam ne si moom mooy bay muy xam aussi lan la marché bi laaj ca man naa ne suñu maam ba léegi li ñu bayee mooy sama maam da doon bay gerte damay bay gerte da daan bay dugub damay bay dugub doo xool sax lan la marché bi soxla lan la sénégalais soxla doo ko xool wet googu aussi dana baax ñu ciy xalaat waaye li war a njëkk daal mooy ñu am kuréel ay kuréel tant que amuñu ay kuréel yoo xam ne si dañoo teew pour baykat yi teew pour sàmm yi teew pour ñi nga xam ne si ñooy yëngu ci dëkk yi mënuñoo fexee fexe ba taxawal dara ndax mbooloo mooy doole lii ñun fi taxawal nii du doon mbooloo du fi taxaw kon faaw ñu xam ne loolu mooy li nga xam ne si mooy tax développement mën a am kon xëy na bu fekkee ne sama nijaay amaat nañ ñoo xam ne si xëy na am nañ ñu ci soxla sama numéro yooyu xëy na après dinaa ko joxe ba nga xam ne si jombul en dehors de suñu liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy def ñi nga xam ne si xëy na bëgg nañ ci ay gën a leeral wala sax ñu bëgg xëy na bu fekkee jot gi maye na ko ñu dem ba seen dëkk xoolal leen la ñuy def incha allah bu ko jot gi mayee duñ ko bañ ndaxte xam bi dañ ko doon jàng ngir Sénégal liñ doon ñu fay pour ñu jàng imp impôt yi sénégalais yi lañ dajale kon nag rawate na ñi nga xam ne samay nijaay lañ wala sama ay maam kon ñi ngi jéggalu bu baax a baax di leen gërëm di leen sant aussi ci opportunité bi ngeen ñu may ban mën a wax li nga xam ne xay na tuuti la ci li nga xam ne xam nañ ko ñi ngi ci sant di gërëm bu baax a baax jërë ngeen jëf yéen mbooloo mi fi daje ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di santaat euh, sëriñ bi nga xam ne da doon wax ci affaire mbay mi ci laay wax man ndax euh, lu ci bari man dama ko dund Amérique ku def Amérique euh, douze ans xam nga ci mbay dara gis nga soble bi nga xam ne moom la Sénégalais yi di bay muy soble bu xonq bi képp koo xamante ne jaay nañ la palaat muy palaat bu seer ñu jaay la ko Amérique soble boobu moom lañ koy ornee benn nag mu noonu mboq mi muy wax itam palaat bu ñu la mën a jaay biir Amérique nga xam ne palaatu ginaar la wala palaat bu mën doon aw mboq moom lañ koy ornee danañ ca teg aw mboq yaa xam da ko lekk yaa xam doo ko lekk waaye dañ la ko jaay te itam ñoom ñi ñuy bayee bu ñu demee ba nga xam ne ñu ngi ruuj dañuy dajale nit ñëpp ci préfecture yi kenn ku ci nekk boo demee dañ lay wax bayal nangam boo ko bayee ba pare danañ ko jënd përi sàngam moom noonu la ñuy bayee boo ko bayee ba pare bu fekkee dañoo laaj kii 2 tonnes laaj kii 2 tonnes ki ñu laaj ko 5 tonnes ki ñu laaj 5 tonnes bu amee 6 tonnes ki ñu waxoon 3 tonnes te amul lu ko mat day jox ki nga xamante ne nii moom lañ laajoon 5 tonnes yi mateewu ko mu jaayal ko tonne noonu la jaay mbay mi. mën liggéey naa ci benn tool boo xam ne nii dañoo bay tamaate ji ba mu ñor ñu jënd li ñuy jënd lépp bi ñu ko jëndee ba pare am na ci tamaate joo xam ne dañoo gas ay kàmb di ko ci sotti guddi ma gis ko ma dem ba ci tubaab bi ma ne ko yéen nit ñu bon ngeen parce que lii ngeen di fab di ko def ci kàmb yi guddi di ko fi suul mën ngeen ko jaayi nit ñi walla ngeen may leen ko mu ne ma déedéet demewut noonu ñun ñoo leen dajale woon ne leen dañoo soxla nangam ngeen bayal ñu ko bay nañ ko indi nañ ko liñ ci soxla danañ ko jël lii ñuy sotti ci kàmb yi dañ ko fii denc pour def ko engrais te suñ leen ko bayloo woon te jëluñu ko jënduñu ko bu déwénee boo leen ko bayloo duñu ko bay lu luñ leen bayloo donte nañu dañ ko jënd ba pare di ko perte sànn sànni itam piri bi ñu leen waxoon danañ ko jënd te danañ jënd liñ bay xam nga loolu itam mën naa dimbale koy bay bala ngaa bay ba pare xam li ngay jaay ak fi nga koy jaayee ak prix bi nga koy jaayee moom mooy li sëñ bi wax ni léegi loolu lépp am na fi kon nag ñun dañu ñàkk ay moyen ak ndimbal ne ay baykat a ngi fi ñu bëgg a baykat a ngi ñu bëgg àll baa ngi fi loolu laa ci amoon loo xam ne dama koy intervenir des na yeneen yu bari sax yoo xamante ni waaye du xaj ci temps bi maa ngi leen di nuyu di leen sant jërë ngeen jëf wasalaam. sëriñ Moustapha jërëjëf sëñ Abdou Lahad Dieng xam nga man li ma ci jàng mooy xam-xam rek moo wóor ndax sëñ Abdou Lahad Dieng li mu wax sëñ Moustapha bi mu jël bi mu jël micro bi tëyatu ko ndax daa wax li mu dund. kii da koo jàng kii da koo dund kon nag ah, ah, kon nag a ngeen jëf ci lool sëñ Abdou Lahad sëñ ñi ngi sant bu baax a baax lii rek moo tax ma bëgg ñépp jàngi xam-xam ndax li mu wax ñun ñëpp am nañ ci bind bu bees tey wax dëgg nag am nañ ci bind bu bees ndax gis nga bay lañ daan bayee bu njëkk képp ko kon ne di bayee da ngay kon ne di sonn loolu mooy réalité yi xam nga nun nun Sénégalais benn rawat na nun wolof dañuy gis dara waaye duñ ko nangoo wax lu mu tudd duñ nangoo wax lu mu doon mooy bay bay bay ñetti weer jaay ko tëddaat juróom-ñeenti weer loolu li fekk ñu ngi koy def rek cib cib coono la ñuy dëkk il faut que ñu jéem a révolutionner mbay mi de comme ni mu ko waxee ñi man jàpp na ñi mënut ñuy bay noor ak nawet man dama yàgg a gëm ni li fekk ñi ngi yaakaar nawet bi rek cib coono la ñuy dëkk. Israël moo gën a ñàkk ndox ci àdduna bi te ñoo dàq bay ci àdduna bi il faut que ñu bay noor ak nawet di transformer li ñuy bay li fekk defuñu loolu ci lii rek la ñuy dëkk yàlla nañu yàlla dimbale ba am bañ am ay moyens yi ñu defee li ñu bëgg te itam am am yaakaar am na ndax xam-xam yi bu dee génn rek nit ñi dañ leen nit ñi itam ñu ci ëpp ay victimes lañu ndax dañ leen a yeewul dañ leen a banoon rek ñuy tañax tañaxi rek il faut ñuy yee nit ñi jàngal leen yar leen yee leen. li fekk loolu amul rek ci sous-développé la ñuy nekk bu ñu bëggee dem ci développement moom dana xaw a metti waaye nag fokk ñu dem ca waaye lañ ca yóbbu mooy ñu waxante li nekk rek kon ñu jox sëñ dem Mademba ture mu lim délégation yi bu ko defee ñu jox sëñ Abdou Akim Silla ñu ngi nuyu mbokki jullit ñi fi teew ñëpp di nuyu mbokk yëpp di leen siyaare waaw di fas yéene Eh, lim ak sant ñi nga xamante ne bi ñoo fi teew kon ginnaaw bu nuyoo ñépp ba noppi siyaare Cheikh Mouhamadul Mountakha Basirou siyaare sëñ Cheikh Abdou Latif euh, ñi ngi tàmbali lim ñi nga xamante ne bi teew nañ fi ci euh, ñëpp waaw ñu tàmbali kon sëñ Abo Mbakke moom sëñ Issa Mbàkke teew na fi ànd ak ay rakkam yëpp mooy sëñ Issa Mbàkke mi ngeen xam mooy sëñ Abdou Dia moom sëñ Abdou nga xamante ne bi eh, sët na fi ñaar yoon ba ñett ndax sëñ Abdou soxna Dia ko sëñ Issa yaayam fi la dëkk sëñ Abou tamit suñu bàjj ko jur soxna moom yi eh, ñi teg ci sëriñ Abou Mbàkke moom sëñ Modou Rokhaya sëñ bu Mbackeem sëñ Modou Rokhaya moom tamit ñëw na fi ànd ak magam soxna Jabaara Mbacke ak délégation bu mag ak ay xéwal yu baree baree bari ñi ngi ñaan suñu borom defal ko tawféex ak taysir ak jàppandal ci lépp loo xamante ni loolu la bëgg yàlla defal ko ko ñu teg ci sëriñ Seex Touré Touré Ndula ànd na ak waa Touré Ndula ak waa Madina ture ñëw na fi doom eh, ak délégation bu mag ñu di ko sant bu baax di ko gërëm ndax turag ndu la maanaam mooy mooy lappe rek ndax lappe fukki penc ak ñaar dëkk bu mag sanc kër moor daaru Touré eh, ma de kër ma demba kër ma xuja eh, turag ndu la madina Touré comme ni ma ko waxee léegi ñaari càqam yi Touré mbond kon ak kër Malick mu nekk fukki penc ak ñaar yoo xamante ne bii daanaka ku fi ñëw ku nekk dangaa ñëw fii ñuy wax dëkk bu mag ndax bu ñu dëkk bu mag rek jeexal na wax ji bu ñu nee sanc nag xam ne ab sanc la bu ñu nee kër nangam xam nañu foofu dañ koo sancoon waaye kon fii mooy penc mi mooy dëkk bi ku fi ñëw te sant Touré kon daanaka jëru ñu lay tudd. fukki at la dund waaye tamit ku doyoon waar la doomam sëñ Cheikh Touré fi la fanaan ak doomam ak ku ñuy wax sëñ Massaer Sil sëñ Massaer Sil tamit teew ci waa kër mi waa mi waa mi turu waa Mirna Sil gépp ak Darou Salam Sil sëriñ Cheikh Gass Syll tamit teew na fi di jarbaat jógee Taïba Njaañ ànd ak ay rakkam ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm Moustapha Diakhaté moom tamit ñëw na fi ànd ak Mouhamad Diakhaté ànd ak sëñ Baara seen baay ànd ak sëñ Sall Diakhaté ci ndigalu suñu Modou Goral Diakhaté mi nga xam mooy borom Makka ñoom tam ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm sëriñ Aydara Diop ñëw na fi ànd ak délégation bu mag jóge Daaru Musi ñoom tamit seen teewaay seen dëkku maam la ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci seen teewaay soxna nday Mbakke moom sëriñ Abdou Fata sun bàyyi yor ko sëriñ Mokhja Touré moom dafa fanaan te boo ko fekkee fee ci waañ wa doo yaakaar ne mukk kii moom Mbakke la samt ndax du ko fa wone day wone ne rek moom ab taalibe la day sàkk lu baax comme ñëpp bu ko neexoon kon mën naa toog ba tey muy soog a ñëw waaye daa fanaan si di wan ne leen Mbakke laa sant waaye maa gën a woyof waa kër Mokhja Maram sëñ Mokhja Maram ñëw nañ ci njiital sëriñ ci seen ki ndigalul seen kilifa. mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ euh, sëñ Maxu Jamara muy Serigne Dame Touré ci njiital ba euh, bay Serigne Touré sëñ Touré moom ànd na ak sëñ mustafaa Touré ak Cheikh Abdou Latif ak sëñ Madike ak sëñ Basirou Madoun ak sëñ mataa Touré ak waa kër Maxu Ja gépp kuñ ci tudd sa tur tam ñi ngi jégalu bu baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ci di leen gërëm ci nga xam ne liñ fiy def ñoom ñoom ñoo ci yam képp wala ñu gën cee sañ sëriñ Khadim ture lappe njadeer lañ koy wax muy doomi Serigne Abdou ture mi ngeen xam moom tamit teew na fi ñu ngi koy sant bu baax di gërëm ci teewaayam ci dëkk boobu nga xam ci la tax waaye tamit ñëw nañ ci ndigalul sëñ Dame Taïba Touré euh, yabal na fi Cheikh Mbacke ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm waa ay lu man jaxate ñu ngi leen sant Serigne Mbacke jaxate doomam mi ngi fi Cheikh jaxate ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ñi ngi sant meerub Daaru si bu baax ndax ñëw na fi dem ba léegi mi ngi ci eh, yabal otoom luñ soxla mu nekk ci di ci jàpp ci liggéey bi kon moom tam ñu ngi koy sant muy Pape Omar Fall ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm soxna Asou Sam di sëtub sëñ Mor Faat Touré moom tamit di soxna sëñ Moussa mooy yaayi sëriñ Cheikh Awa Balla mi nekk moom tamit soxna Asou Sam moomu teew na ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax man bi ma nekkee njaareem ma nekkoon sama day daara kon man am naa ci sama cant bopp koo xam maa ngi koy sant waa bopp si la ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ñoom ñëpp ñëw nañ fi soxna Jobe Jaane ñëw na waa bopp moom tamit kuñ kuñ tudd sa tur tamit ñu ngi lay eh, jégalu bu baax te xam ne eh, bëgg nañoo jaar ci kenn ko nañu jaar ci sa tur sëriñ Fallou Diop mooy doomi soxna Magat Dem mooy moom Awa moom soxna Awa njaay ture moom Kumba ture Touré Mbond maanaam xujja Touré te moom moo moo jóge woon ah, lappe kër Bala Ndioro kooku kon mbokk euh, ak mbokk la kër Bala Ndioro surtout Bala Ndioro la kon sëñ lu Diop mi nga xamante ne bii mooy colonel sëñ Moustapha léegi moom tamit ñu ngi koy sant bu baax ci wolante bi mu am ak fa mu jógee ni mu soree jógee ba ma nga jógee ba Ross Béthio fu sori dégg ba mu ndaje mi dana loolu sama dëkku maam la il faut ñëw teew ci sëriñ Massamba Mbuub jóge ñëw na fi ñu ngi koy sant bu baax di gërëm démb laa ko woo téléphone mu ne ma loolu incha allah noo mën a dinaa ci mi ngi jógee piir ñu bari ci yoonu Mouride ak fépp fu ñuy defal baax xam nañ ko Serigne Mbacke Lo moom Dakar rakki doomi soxna Ndeye Touré moom soxna ma sëñ ma Demba Touré teew na fi Ilimane Touré ak waa kër Alimane teew na fi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm waa Ngayeen Gay fàttewuñu leen ñu ngi leen sant baax di leen gërëm Mokhtar Mokhtar Diané Njaareem moom Ba Ibra Diané maanaam di. sun doomi bàjjan di soxna doomi soxna Lootu Touré moom tamit ñi ngi koy ñaanal bu baax soxna sa di ko ñaanal ak wér di ñaanal sëñ Moustapha Diané euh, di sama goro di la ko yóbbante boo demee nga ne ko ñi ngi koy sant baax di ko gërëm sëñ Abdoulahi Silla moom cumbuleen moom tamit teew na fi ñuy ñaanal baayam sëriñ Mbacke Silla yàlla suñu borom ko njëgal ak yërmande sëriñ Cheikh Touré maanaam Touré Ndula tamit yaakaar naa waxan naa ko waaw sëriñ Cheikh Touré moom Baye Xayaar Touré tamit teew na fi euh, di indaale nuyoo ak ak ak ak cant ak yóbbanteeg soxna euh, Mame Fatou Touré bëggoon naa ñëw ak sëñ Abdou Aké mi nga xam ab jabaatam ñii daal mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci kayit wi ah, buñ fàttee ñeneen nag mën ngeen ñu ko waxaat bu ko defee ñu mën leen ko waxaat kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.